ah génneel kooku. bii nga xam ni jëmatil dañ koo bëgg a nangu ci appel doole nangu ko ci lu teguwul ci yoon te noo dajale sunuy fukk ak sunuy juróom ba am sunu forage waa ak waa teg ñëw bëgg taxaw fii ëpp doole nangu sunu forage loolu nag lën dul nangu loolu lën dul nangu tam waaw léegi léegi luñ ci attan rek attan nañ ko ci luñ ci attan rek attan nañ ko ñoom ñi ko moom lu leen jaral jaral na lu ko raw fop fop fop man maa ko wax li forage bi ëpp doole rek jekki-jekki dal ci sunu kaw ëpp nu doole def pexe yoo xam ni nii yàq machine bi machine bi ban fi ñëwee seet ci machine bi biñ ñëwee seet ci machine bi ah pendant vingt-quatre heures la am machine bi am tàkk waaw léegi nag ci loolu lañ ñu ëppeel doole andi fi machine bëgg noo forcé nangu sunu forage te duñu ko nangu tey jii taxaw mooy taxaw nañ ci buntu bi duñu ko may kenn kenn kenn mu taxawati fi te sunu forage bi noo ko moomal sunu bopp. jël nañ ko bis ni ka jii bis ni ka tey jël nañ ko waaw. asalaamaaleykum wa man la Dame Fam jamatil li naqari ñëpp moom ma naqari moom lañu taxaw di wax bu ko dëgg gone yi nii dañ koy jël dañ koy jël dañ koy jël suñu alal la wax nañ ko moom ndax forage bi dañoo ànd dajaloo ku ne kii def fukk kii def juróom bañ am forage ñu xëy xëy xëy taxaw ni dañuy jël forage yi. bi ñu duggee fii bi ñu fi duggee fii bi ñu fi jógee 24 heures la machine bi tàkk te léegi machine bi fi tàkk na ñoom jël nañ machine booba bàyyi fi beneen machine bu ñu yokk nañ li ñu daan fay bu ñu daan fay ñaar fukk léegi ñeen fukk la ñuy fay yokk na fay njox gi fekk fay fay lépp dëkk ba pare nañ par ànd ci ak waate doy na ak waate doy na doy na fi ne àndoon nañu pour jëlaat suñu alal nag te bëri dara. dafa seer ndox yokku nan ko xam nañ fii ay dëkku kaalo fii ni ñu yeggoon lu dul mbay mi bu nawet bi jot bi bu nawet bi euh, tasee du bu mbay amul dara du am yokku nañ ndox mi bu dëkk te xam ngeen lii lii xam ngeen lii petit forage la li bassin la du forage forage ku ne mi xam nañ ko benn dëkk benn dëkk benn dëkk noo ko defaral suñu bopp waaw mboolem mbalka ni ci leen nayeeg ak ak yëpp daan ñaan mais léegi mais léegi néewtu ñox dañoo fees ba nañ ko ba dem waaw. arrangé wuñ leen ñoom. arrangé wuñ ñu mujj ko moom rek lañ bëgg te leen te jàllal leen lu ne nag. mi yokku nan ko xam nañu fii ay dëkkub kaalo fii nit ñi yekkoon lu dul mbay mi bu nawet bi jot bi bu nawet bi ah, tasee du bu mbay amul dara du am yokku nañ njox mi bu dëkk te xam ngeen lii lii xam ngeen lii petit forage la li bassin la du forage forage ku doon ne mu mel xam nañ ko benn dëkk benn dëkk benn dëkk noo ko defaral suñu waaw mboole mbalka baa ngi ni ci daan nayeeg ak ak yëpp daan ñaan mais léegi mais léegi nëwtuñ wax dañoo fermé ba dem waaw arrangé wuñu mu arrangé dañoo arrangé tàqale ko moom rek lañ bëgg te leen te jàllal leen nag waaw benn jigéen. benn ah. jigéen maa ngi leen di nuyu seen tur di leen sant fay seen sant. laaj seen jàmm ak seen jàmmeeram. léegi nun sunu forage bi góor ñi ak jigéen ñi yëpp a woon ñu def sunu xaalis ñu fexe ba am forage bi kenn defaluñ ci wan dara nun yoruñu forage mbànd la nu yor. waaw mbànd mi nu yor daanaka bu ñu ko taale bu ñu ko duyee ba mu fees dëkk bi sax mandiwu leen ñu ñëw bëgg koo jël ci sunuy loxo bi ñu koy góor yëgul. jigéen yëgul dañoo jikki-jikki rek ñu ne joxe nañu forage bi loolu lañ ci kenn waxul ñi kenn dañoo waral na dajaloo ñu laaj ba xam nit ñi d'accord nañu am d'accord waaye dajaloo wuñu dañoo jikki-jikki rek ñu ne joxe nañu forage bi loolu nag moom la ñu bañ tey moom la ñu bañ suba forage bi duñu ko joxe tey duñu ko joxe suba sunu ko salaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam. man Fatou Sène Gadda Amadou Fall Ndiaye. maa leen di nuyu. te di leen ni sunu forage bii ñu bëgg a jël ci sunu loxo yii. buur defaluñu ci dara. waaw. waa radi ñoonu ko may. ban nu ko ñu ne da ngeen def seenu ñaq. sunu góor ñi góor junni jigéen juróomi téeméer. man mi sama borom kër ak Lamine Baabu dem nan Dakar mbokk mu nu xam ne yaakaar nan ko mu jox nu dara mu jox leen dara ñu indi boole ko ba sunu forage taxaw kon nag sunu forage bi buñ ko bëggee nangu di coupé sunu robinet bi sama robinet baa ngi dañ kaa coupé ba damm ko ah, te xam ngeen loolu jaaduwul waaw nan nu jox sunu forage ndax gouvernement defalu ni ci dara dara la ci defalul xanaa lor nu xañ ñu waaw nan ñu jox sunu forage bi sunu robinet yi ñu coupé ñu yor sunu jur gi yor doom yi war a fóot sangu koor gi xam nu fu ñuy rootaane ji loolu jékkul jaaduwul sunu forage lañ bëgg a jot gouvernement bi jox nu sunu forage. waaw forage. Marina. jëndal boobu